gan Souleymane Aliou Diallo salaamaaleykum. maaleykum salaam. Mm, ñu ngi lay euh, gërëm ci teewaay bi ak nangoo waxtaan ak ñun maaka laaj njóogu jën li ñuy fas yéene junj ak yow mooy euh, immigration euh, clandestine di mbëkk mi gone yi nga xam ne bawoo nañ Sénégal jamono yi ñu ne te doon mbooloo kilifa yi nee na ñoom mënuñ koo xayma. yéen ci da ngeen yëngu ci loolu mu yitteel leen seen ONG bi nga xam ne yaa ko jiite tudd Otra Africa est-ce que mënees naa xam ba xam euh, li ñuy wax ni juróomi téeméeri gone yi Sénégal dee nañ ci géej gi ci fan yi lu firndewu la wala euh, dëgguwul. Euh, Babacar ñu ngi leen di nuyu di nuyu askan bi balaa ñuy wax waxu lim di ngeen ñu permettre d'abord ñu jaale waajur yi nga xam ne ñoo ñàkk seen doom ci mbëkk mi. parce que mënuñu wax waxul lim suñu xel demul ñooñu euh, may sante di euh, contribution bi ñu nekk di def euh, par rapport ak sensibilisation thème sommes ñun lim yiñ ci mëna wax mi mois de mars Le fi gal def destination Tenerife amul dara lu ko amul dara lu ko dañu yi bu Euh, tey ñu ngi wax waxul lim euh, wax nañu juróomi téeméer ak lu ëpp euh, chiffre yooyu du ay chiffre yu génn nii rek am na walla amul l'essentiel mooy ni que am na ñoo xam ne ñoom ñoo yore askan bi ñoom ñoo jiite askan bi bu demee noonu ñoom ñoo mën a wax parce que tamit ñun amaana ni ñu koy wax ñu mel ni sama bànqaas euh, man bi ñu ko waxee rek dam leen ne daanaka lim bi am na solo takku na trop mais bës boo xëyee rek am na lim bu siy tegu bés boo xëyee rek am na lim bu siy tegu ginnaaw toll na foofu léegi bu ñuy xëccoo si ay lim bu ñu polémiquer si ay lim nañu concentré wu directement si lan la ñu fexe pour arrêter lim boobu ñu fexe mbëkk mi génn nii ak jamono bu mu kii nii parce que en 2006 bi mu commencé lim bi ñuy am. te ñu koy suivre si journaux espagnols yi ñu koy suivre ak ñi nekk si terrain bi lim boobu mu ngi ëpp dayo et que njiit ñi yore réew mi ñoom ñoo war a mën a euh, takk seen digg pour mën a affronter lii donc lim boobu ah ñun ginnaaw yoruñu baatu officiel baatu askan bi dañ koy xayma rek si li ñuy jëlee li génn bitim réew jële ko tamit si bànqaasu ONG ak organisation multilatérale ak partenaire Sénégal yi nga xam ne ñoom ñooy liggéey si wàllu boobu don OIM boobu ñuy wax donc démb dégg nañu euh, ministre secrétaire général du gouvernement ne ñoom mënuñu si xayma mais ñun nag dañu démb bi mu ko déggee rek immédiatement ñi ma concerté wu dañu ne su doon suñu sago bi gaal bi génn bi commencé génn ba ñu wax fukk ba di wax ñaar fukk ba di wax fanweer ñi décédé une cellule de crise dañ ko waroon monter au sein du ministère des affaires étrangères ñu koy suivre au quotidien parce que bu ñu neewee juróomi téeméer rek mooy ni que kon mbëkk mi moo gën a rey mi parce que c'est une lim la ñu wax on parle de 500 donc suñu ñu xoolee le nombre de décédés de la Covid 19 te saa yi bu ñu xëyee rek ministère de la santé day def le point.

waaye war nañu mën a am ginnaaw ñoom ñooy ay structure ñoom ñoo yore euh, nguur gi te ñu jox leen bànqaas jox leen moyen jox leen lépp li war ba après tamit ñoom ñoo yore convention yi ñoom ak euh, Espagne war nañu mën a euh, lëkkaloo pour même bu ñu amul les chiffres yu exact ñu am ay chiffres d'orientation wala ay estimation de chiffres loolu nan lañ koy war a mën a defee ni que ñoom seen biir tey euh, ñoom ñoo yore police bi ñoom ñoo yore gendarmerie ñoom ñoo yore également réseau diplomatique bi euh, am nañu euh, mission diplomatique en Espagne ambassade moom mu ngi fa consulat à à Madrid am consul honoraire Las Palmas am consul honoraire Tenerife nous une association des sénégalaises nous avons xam ñu ngi donc nous, avons bu leen mettre en action dans le cadre d'une cellule de crise au moins nous doon am ay chiffres estimatifs yoo xam ne nañu pour ne pas rater l'esprit mathématique et l'esprit scientifique de ces recherches. chaque jour nous avons daanaka gaal bu fa duggee rek dañu jàpp ne que Saint-Louis la génnee walla mbuur mën na amaana na sax tubaab yi dañu juum di ne ah ay sénégalais lañu fekk ni ay africains lañu donc loolu pour ñu mën ko xayma dëgg-dëgg waroon nañu mën a associer acteurs yi si nekk yépp surtout nag sunu mboq yi nga xam ne ñu ngi Las Palmas te ñu xam leen man xam naa leen Espagne laa nekk autre Africa association la boo xam ne Espagne la nekk donc mm, autorités yi nekk fii bu ñu mettre ñooñu en contribution. amaana ni du ñu am ay chiffres exacts waaye dañ doon am xayma boo xam ne dañu mën a xam au moins plus ou moins fan nañ si toll. yéen en tant que acteur am ñu leen toggal foofu ca euh, Espagne yéen si seen i xayma yan xayma ngeen am ci ñàkk seen bakkan ak tamit ñi dugg foofu la jamono ji ba démb si démb si guddi bi ma bi may bi may waaj kii je sais que Espagne jàpp na ni fu mu toll nii y' a presque plus de seize mille émigrés yu si dugg. ci biir 16000 émigré yooyu ñoom ñu ngi wax ni que 3000 sénégalais lañu par rapport nak ak décès yi nekk biir géej ban banxaas ak ban kuréel ci espagne moo wax loolu euh, police espagnole bi ministre de l'Intérieur espagnol Dembo Mugiwon Tenerife. Mm. C'est vérifiable également si médias espagnols, puisque nous sommes fof nous Khaïma, c'est fof le qui, lolo mungi tibir kibi, mungi tibir euh, médias et que bon on information yi, but Dembo dal en tout cas nous il estimait 16 000 émigrés et d'ailleurs euh, fi émigrés di dal fum nek ni sa ñom dañ koy waja tej pour mëna ubbi ben camp militaire bo xamne dañ ko euh, désinfecté won pour mëna yobbu émigrés yi fofu ba démb si guddi heure bi may tëdd maa ngi ko vérifié waat les dernières informations sur les médias espagnols foofu la ñu toll woon. Mhm. ci 3000 sénégalais yooyu euh, ñi ci ñàkk seen bakkan ñoom ci seen xayma ñaata la toll. bon euh, estimation wu li ñu li ñu li ñu bind ñoom li ñu bind si foofu. Mhm. ils ont parlé de 500 euh, migrés. donc ci biir 500 migrés yooyu pour ne pas aller vers l'amalgame une estimation inexacte ñoom jàpp nañu ni que war na am ay sénégalais. C'est mom 500 mom euh nagn ko ñu même lenn rek chiffres parce que quand on parle de clandestinité quand on parle de quelque chose qui est irrégulière moy ni que amuñu xayma bu mais li wër ba wër moy ni que ay doomu sénégalais des nañu euh, war nañu xam ci ban ban condition le décédé te loolu du ñun ñoo ko war a mën a def état bi moo ko war a mën a def état bi nag si lan la war a mën a sëkkandiku mooy si ñiy yegg foofu gaal bu yegg rek waroon na mën a am ku fa toogal Sénégal ñu xam yan condition la ñu génnee fan la ñu génnee ak ñaata la ñu woon ak ñaata moo si des biir géej loolu moom état wu Sénégal ñun quelque part si orientation yooyu lañ leen di yóbbu mooy ni ko bu ñu nee rek mënuñu mais nañu jéem wala suñu mënulee tamit wala xamuñu ñu wo acteurs yi ñu tok gis nga fléau bi ñom kessé mënuñu ko régler ñom nous koy mëna régler partenaires partenaire au développement OIM y compris les acteurs ñun y compris Horizon sans frontières Autre Africa Recidev ak ñenen la ministre Ngoné doy elle est très active sur le terrain nekkoon na le gouvernement bi amana ni expérience tous les acteurs ñu wo autour de la question ñu tok Euh, ñi jël gaal bi dellu c'est en c'est un ensemble la ñu mën a teg pour éradiquer ce ce fléau. Mhm. léegi euh, dañu bëgg xam yéen ONG bi nu ngeen gisee taxawaayu gouvernement Sénégal ci non seulement demu gone yi xayma gi ak li waral gone yi di dem. Euh, bon li ñu mën a jàpp mooy ni que ah ñun de gouvernement wu Sénégal kóolute rek la ñu war a mën a def si moom. mais à ce stade nak wax dëgg yalla ñun parce que mënuñu am estimation bu tollu ni ñu des chaque jour bu ñu am ay pirogue yu ñu gendarmerie bi marine bi suñu côté Espagne ñu gis également ay milliers et des milliers sénégalais surtout actuellement ñu en dérive si euh, île Las Palmas foo taxaw rek nit ku ñuul foo taxaw rek nit ku ñuul et les sénégalais avaient une très bonne réputation biir Las Palmas ñu ngi yakal ñi nga xamne ñom ñoom ñoo fa et que lolu am euh, ñu may wax waxu tweet chef de l'état vraiment tweet bi japp nañ ko mais le chef de l'état n'a pas été élu sur la base de tweet je pense que c'est sur la base d'un contrat de confiance et d'une communication parfaite que les sénégalais ont qui ci buñ koy tekki manam Macky Sall euh, ba léegi fii ci Sénégal taxawul wax li fi xew mujj ñu dégg làmmiñam waaw da ko bind ci internet mm. te da ngeen a jàpp ni ba mu soxlaa baatu Sénégal yi euh, sénégalais ñu woteel ko bindul daa wax ñu dégg waaw ñu ma waxe ko ma wax ko si wolof bu set wecc mooy ni que euh, Macky Sall si xarala yu bees yi Twitter lañ ko dégg mu wax euh, communiqué conseil des ministre am na pàcc bum si laal mais ñun li ñu doon xaar dëgg-dëgg moom mooy njiitu réew mi ajuma bi passé am na ñu nekk ci réseau internet yi lim bu takku sax bu def ñoom seen seen seen njaal yónnee seen njaal askan bi euh, gouvernement wu Sénégal yaakaar naa ni waroon nañu mën a euh, wax wax bu leer naññ bind bataaxal yónnee ko yónnee seen njaal jug sax jug sol seen dàll dem Mbour Tefes wala dem Saint-Louis ñëpp a xam ne gouvernement bi moo jug ñëw fekk si askan bi naqarlu ak ñoom jaale leen euh, jaxal leen si li nga xam ne xale yooyu des nañu biir géej côté boobu nag euh, yaakaar naa ni euh, mooy li tubaab bi di wax mutisme état bi mën na am tamit am na lu ko lu wundu mais tey fu ñu toll nii fi askan bi toll nii. lan moo tax nga jàpp ni nguur gi fi ñu toll nii gouvernement bi ak njiitam Macky Sall bëgguñoo wax ci yëf yi bëgguñ cee sori lan nga lan nga jàpp ni moo tax. Babacar démb suivre naa bu baax c'est euh, sa sa sa émission ak euh, ministre porte-parole du gouvernement. secrétaire euh, général secrétaire général du gouvernement. moom à stade de responsabilité a à stade de information bu nekkee moom ñemewul wax wala bugul wax. li tax njuutu réew mi mënul wax man mi nga xam ne si suuf rek ab taalibe rek laa euh, maa ngi si berkel la bi du ma mën a aventuré wu pour wax ni que lan nenyu ko waral waaye nag nañu jàpp ni que askan bi fu mu toll nii soxla nañu xam lan askan bi si ak jàkkare bu ñuy toll dañuy bëgg suñu di waxtaan ak ñu te muy nekk tamit wax ju leer naññ boo xam ñun si loolu la ñu mën a wéeru gis ñun tey acteurs yi si def lu dara parce que orientation bu ñu def am na kenn ku may bi may ñëw léegi bi may wax moom may ne ah demal yaa ngi dem de mais attention procureur da lay déglu procureur mu ngi déglu rajo bi ndëgam ñun loolu lañ ñuy tegal si taabal bi donc mu ak action bu ñu munti jël ak information bu ñu munti am dañ siy def ndànk parce que amuñu benn orientation boo xam ne si boobu la ñu war a mën a accompagner état bi gis nga lii bi mu amee ba léegi. mais état bi gis ne même bu ñu waxee ne par exemple ndaw ñi ñàkkum xëy moo tax ñu dem ñu ne non du loolu formé nañ leen ak liggéey a ngi fi boo nappkat yi géej gi dañ koo jaay euh, waa bitim réew moo tax nappkat yi liggéeytu ñu dem ñu ne non non est-ce que amul fuite de responsabilité finalement ñoom ci wàll wi. fuite de responsabilité weesuwul nga am presque plus de 500 morts une estimation boo xam c'est une estimation on parle presque plus de 3000 jeunes sénégalais en attente d'être refoulés euh, en Espagne te tu tu ne communiques pas sur ça maintenant problème mu xëy bi gis nga doomu aadama fu mu sa wërsëg dina fa nekk il faut qu'on il faut que ñuy wax ak sunu askan wax ak sunu xale yi xamal leen ni que dëkk bi fu waaye nekk war nga fa mën a war nga fa mën a kii léegi problème bi fan la nek. dëgg la ni ñi liggéey am ci rewmi mais ban façon liguey ak ki soxla liguey nan lañ koy accompagner ba mu am liguey fofu mën nañ fa tek sunu baram je prends l'exemple tout le temps dam koy wax lu melni 3FPT wax dëgg yàlla ñu ngi def liguey bu am solo actuellement 3FPT li ñu nekk di sur le plan de la formation de permettre étudiant bi nga xam ne de na formation ñu may la formation faciliter la formation bourse boobu ñuy joxé buñ ko également sur le plan de l'emploi tay tey El Ndiogu yow bo soxlé liggéey do xey rek nga dem ci radio concurrent bi mais da ngay dem ci ben structure état nga tek fofu sa demande d'emploi. structure état bobu xol ban organisme mo soxla journaliste ñu orienter le fofu kon tey dina am équilibre donc euh, walum liggéey bi surtout géej gi tamit ñi ngi wax waxu bateau de pêche yi du du ma sànni xeer suma suma mag suma xarit euh, le ministre Alioune Ndoye ñoo bokk plateau si accord de pêche mais xam naa ni c'était quelqu'un qui est très fin qui est très patriotique très engagé accord de pêche yi bu ko fi bu ko fi fekkoon amaana ni du demee ni cinquante mille tonnes dafa bëri donc euh, géej gi amatul xale yi di te ñii yóbbu gaal gi du ajoor ajoor yi du bawol bawol yi ay nitu géej ñu xam géej xam kap kap yu baax yi su ñu demee géej amatuñu ñu def ñetti fan géej amuñu lu ñuy teere su su su yàggee ñu ne leen yoonu Espagne baa ngi nii te Espagne nag la ñu jàpp ni que Espagne buntu dugg rek la xale yi jëm yëpp tooguñu Espagne dañu bëgg a jóge Espagne dem si yeneen dëkku Europe yi donc espoir bi foofu la am mais ngi wax bu baax ni ay gone yi nappkat dañoo bokk ci yëf yi mais lii ci mujjee xew dañoo seetlu diggante Kébémer mhm. jàpp ngay mexe mhm. bëri na ay gone yu bawoo foofu dem mhm. loolu lu ko waral ban explication ngeen ci mën a joxe explication bu ñu ci mën a joxe mooy yaakaar l'aspect social da si am tey mais pourquoi foofu diggante boobu Kébémer diggante Kébémer ak ngaay mexe dafa wow dafa dëgër y' a pas de travail y' a de de de ressources yi nga xam ne. mooy te mu ne ngaay nee ñu euh, bëggoon nañ ko def dëkkub euh, dëkkub der. cuir defar dàll ak euh, yeneen yi. waxoon nañ ko essa def nañ ko aujourd'hui quel est ana impact bi nga xam ne moom la politique artisanat am si ngaay ñu génneel ñu chiffres yi ñu génneel ñu évaluation yi gis na tey neex na ñuy taxaw di ne bëggoon nañu def wala def nañu xam nga lan moo am solo. boo defee programme ñaari at ñetti at nga génnee évaluation yi teg ko sur la table askan bi yëpp xam ni fii dugal nga fi téeméeri milliards téeméeri milliards yi lii la wundu lii la génnee bu ko defee ñu mën a def évaluation bu wóor ñu xam ne xaalis bi nga dugal si askan bi nii nga ko defee rek askan bi nii la ko telloo loolu tamit am na solo léeg-léeg ñuy def évaluation di présenter résultat projet yooyu ñuy def taxaw di ne dugal nañ ko si rek amul solo taxaw nga ne lii lañ ko defee moo ëpp solo su ko boobaa ñun ñëpp ñu xam ne que ah amaana ni bëgg-bëgg bi mu ngi fi sago bi mu ngi fi mais am na li des parce que nag lépp du mën a sottandoo benn yoon lépp du mën a sottandoo benn yoon kooku mën nañ leen ko jox mais li nga xam ne moo am solo ba dë ba wéer mooy ni que xale yi il faut que ñu ramener leen à raison il faut ñu joxaat leen espoir tey dafa am benn désespoir bu wóor boo xam ne xale yi mënatuñu gëm mënatoo wax ñu gëm seen bët xóot na trop parce que bëgg nañu dimbali seen ay njaboot nga toog nga nekk ak sa wuy waajur sa jur bu jigéen mu xëy nee la ah dama bëgg a teg cin yow laa yaakaar amul dara loo xam ne loolu nga koy jox nga nekk ak sa wu sa rakk ci biir kër mu feebar ñu woola hôpital nee la ah kaay participer si ordonnance bi wala sa rakk mu ngi nii nga fay sa téléphone nga xëy gis sa morom bu nekk bitim réew bu ñu ko woowee téléphone mu dugal léegi loo xam ne wala mu ñëw indi oto wala tabax kër loolu tamit euh, lekk-lekk ñàkk-ñàkk bi si yooyu lañ ko war a mën a leneen li si am solo mooy ni que euh, ñetti aspect yoo xam ne yii suñu njiit yi tam leen di ko ñaan à travers antenne bi ñu ngi ñuy déglu nañuy fexe ñu si bàyyi xel gis nga ñii jëm aspect économique et monétaire bi da si am solo un franc euh, si un un éco un euro égal six cent cinquante cinq kii bale fii war a dem ko foofu trois cent euros fii bu fi ñëwee mënul am cent cinquante mille bu muy bale dem bi moo koy gënal nga war a dem football yi terrain yi baaxul ñu ne la Barcelone terrain terrain yi si tali yi sax ay terrain gazonné la sa xel day nekk si loolu nga war a mun a jug fii sa xel nekk si infrastructure yi nga ne ah foofu moo gën lol dal lu am solo le développement de ce pays amul ken ku ko meuna def si on conscientise pas nos jeunesse, mhm. pour que ñu xamne ñom rek ñoo meuna développer suñu réew. wàllum conscientisation bobu nga wax sax gis nañ ne bir mi jéggi na dayo waral ba xalifa général des mourides Serigne Mountakha mbake yëkkati ci cadre jaarale ko ci porte param Serigne Bass Abdou khad di wax ndaw ñi nañ bàyyi mbëkk mi ndaxte xaru la est-ce que yaakaar nga ni discours bobu kilifa gi kàddu yu mu yëkkati ndaw ñi dañu ko dégg et que dina am impact ñu tok ñu ngi koy sant gërëm di ñaan yàlla yàlla na ko fi yàlla bàyyi te mu wér te ànd ak ñun. kooku bu waxul woon mu jaaxal ñu mu tiital ñu parce que fu mu nekk nii il faut mu am ko wax. ndegam ñu ngi doon xaar njiitu réew mi ñu ngi koy xaar ba léegi xam naa ni nag dafa nekk di di gëstuwaat rek ba kàddoom jug si loolu mais xalifa bi euh, yaakaar nañu kàddoom du du tàbbi xalifa bi li mu wax loolu la ñu xaar si moom loolu mooy rôle am loolu mooy position parce que askan bi jaaxle na. fu mu ne ni chaque jour bu ñu xëyee rek loolu mooy kii mais est loolu rek dina téye xale yi loolu ñu ni que loolu rek mën na am nag euh, benn élan unitaire ñun ñëpp yéen ngeen def seen liggéey ñun ñu def suñu liggéey ñi yore réew mi ñu toog ñun ñëpp amaana ni dinañ dinañu wax si loolu parce que xale yi li si ëpp solo mooy ni que tout le temps xale yi dañu dégg koppar bu bari bu jógee Union européenne ñu ngi koy def si emploi yi ñu ngi koy dugal si kii mais ñoom duñ ci gis seen bopp est-ce loolu moo am est-ce koppar boobu ñëw na si dëkk bi est koppar boobu dugal nañ ko si xale yi ese ce koppar boobu yëpp dugal nañ ko si si si xëy mi loolu tamit lekk-lekk day xaw a ëlëmal xel. Mhm. waaye itam euh, euh, ci dix secondes euh, yéen Otra Africa seen ONG bi tam est-ce que am nay mébétu ñaax gone itam ñu bañ a jaay seen bakkan lu mu metti métti. mois de mars bi ñu koy wax adduna bi yëpp askan bi yëpp si mbas mi lañ doon xalaat. Bigal gi rek ñun dañu ne ko arrêté que sensibiliser attirer alerte ñun loolu mooy sunu hmm. mission gu gi yegg na mars la Sénégal mooy jamono ji mbas mi tàmbalee wulee ñaay mi hmm. bi solo ñuy euh, sunu gan gi euh, kon di euh, Aliou Diallo ONG Otra Africa une autre Afrique en espagnol. effectivement jërëjëf euh, Yendok donc euh, jàmm jërëjëf El Hadj Ndiogou Diène